mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen balu aq te di leen bal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñu bëgg a ñëw ak yéen ñu ko baaxoo ànde ak yéen ci ay bu jot di fat leen tëndoo ak yéen lenn ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu waaye di ci eh, jàngatandoo ak yéen ñu nekkoon ak yéen ci téeréem bi nga xam ne moom la tudde maxaaliqun niiraani wa mafatixul jinaan muy téere bu ama am solo boo xam ne eh, sëriñ bi leeral na ci mbir yu bare bare bari yoo xam ne eh, doomu aadama bi war na koo bàyyi xel waaye jullit bi war na koo bàyyi xel rawatina talube bi waaye rawatina Euh, murid bi euh, ñu tolloon ci suñu bind bi weesu ci euh, ngànnaay yi nga xam ne ñeenti noon yi nga xam ne ñoo gën a siiw di ci nooni doomu aadama yi ngànnaay yi nga xam ne yor nañ ko di ko songe doomu adama yi waaye itam ngànnaay yooyu ñu yore naka la doomu aadama bi def ba man leena ba mën a damm seen ngànnaay yooyu waaye mën a mucc ci seeni pexe yi tëj leen ci kaso goo xam ne duñu ko mën a lor yaakaar naa ci bind boobu lañu tolloon ci suñu bind bi weesu mooy fi mu doon wax ne amma silaaxuha allazi bihi tubiit fa huwa almuxaalafatu fi xayri mufiid ñu taxawoon ci bind boobu kon suñu bind tey fi muy continuer tey rek mooy wa sijnun ab kaso euh, wa sijnu seytaani kasob seytaane bila xilaafin ci lu dut euh, genn wuute zikrul ilahi mooy tuddu yàlla almania yàlla may aji tere ko almuafi yàlla may aji mus muslik euh, sëriñ bi radiyallahu anhu nee na kaso gi nga xam ne moo di kasob seytaane de ci lu dut amul benn wuute mooy tudd yàlla nee na saa boo dee tudd yàlla maanaam dugal nga ko ci kaso goo xam ne mënatu caa génn ndax saytaane mooy euh, li nga xam ne mooy jax-jaxal xelum doomu aadama ba su bëgg na jublu ci lu baax sax seytaane mën na koo jax-jaxal euh, mën naa fexey ba euh, dëdduloo ko lu baax loole nga xam ne jaar na ak sëriñ bi fa baree baree bari waaye sëriñ bi moom saytaane mësu koo mësu koo ñime ngir lan ngir sëriñ bi daf daan takkoo turu suñu borom bi subhanahu wa taala fu mu toll waaye daf daan takkoo ak laab fu mu toll daf daan takkoo ak sell euh, fu mu toll moo tax boo demee ci euh, mu mu mu masalikul jinaan sëriñ bi mi ngi fay wax ne amma dawaamu zikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana al muridu yak euh, yuksiru nee na xam ne mooy saxal tudd yàlla day mooy li xam ne moo gën màgg ci loo xam ne euh, taalibe bi def koy saxal di ko def kon nit ki su fekkee ne sax na ci tudd yàlla euh, di ko baril saytaane du ko ñimee waaye saytaane du ko euh, mën a dugg saytaane moomu am ay ngànnaay ngànnaay yi nga xam ne yore na ko moom la sëriñ bi di ñu leeral mu ne amma silaaxuhaa daal ngànnaayam moom saytaane allazi ya nga xam ne yasulu dana songi bihi ca ngànnaay yooyu mutiyaan aji topp suñu borom subhanahu wa fa huwa moom alxafulu mooy sàggan ñena sàggan mooy ngànnaay li nga xam ne moom la seytaane di songe doomu aadama bi ba man ko waaye moom la seytaane di songe euh, taalibe bi ba tee ko topp suñu borom bi subhanahu wa taala waaye tee ko def li nga xam ne mooy ndigali suñu borom bi subhanahu wa taala kon euh, sàggan euh, ngànnaay la loo xam ne seytaane daf koy jëfandikoo ngir lan ngir mën a euh, euh, ngir mën a gàllankoor doomu aadama bi ci digganteem ak boroomam waaye mën a gàllankoor doomu aadama bi ci euh, taxaw gi mu war a taxaw ci ndigali suñu borom bi subhanahu wa taala waaye topp gi mu war a topp suñu borom bi subhanahu wa taala kon ngànnaay loolu nga xam ne mooy saggan nag li nga xam ne moo koy moo koy damm ba pare jël borom di seytaane tëj ko ci kaso mooy lan mooy tudd suñu borom bi subhanahu wa taala nit ki saa boo xamee ne mi ngi saxal di tudd suñu borom subhanahu wa taala ab xolam du sàggan waaye itam fu mu toll dana bàyyi xel suñu borom subhanahu wa taala waaye saytaane mi nga xam ne moom moo yore ngànnaay loolu itam euh, du ko ñime ba koy songu mukk du ko ñime ba koy songu moo tax boo demee ci Munawwir sëriñ bi mi ngi fay wax naa wa faarixil xaflata xaysu mallain xifta fa innahu yakuffuhu lmuin ne na saa bu fekkee ne bëgg nga euh, saytaane day ragal la saa boo xamee ne bëgg nga saytaane ragal la suñu borom subhanahu wa taala fegal la ko ne na na nga tàqalikoo ak li nga xam ne moo di sàggante maanaam bul sàggan mukk ndax saa boo sàgganee euh, saytaane am ci yow aw waaye saa boo sàgganee saytaane ñime la waaye saa boo sàgganee saytaane am fu mu jaar ba mën a dugg ci yow kon sàggante mooy li nga xam ne moom la saytaane di jëfandikoo comme naay loo xam ne daf koy songe murit bi waaye daf koy songe euh, jaamukatu yàlla bi waaye daf koy songe ki nga xam ne dafa euh, euh, fëx jubali suñu borom bi subhanahu wa taala waaye dafa sóobu yoonu suñu borom bi subhanahu wa taala te loolu lépp du ko def ngir dara waaye da koy def ngir gàllankoor ko ci digganteem ak boromam ci topp goo xam ne war naa ci war na koo topp borom bu subhanahu wa taala kon sàggante lu jara moytandiku la waaye li ciy musal doomu aadama bi mooy mu bari di tudd suñu borom bi subhanahu wa taala di def ay zikr euh, di def ay la ilaha illallah ak yi nga xam ne yëpp mën na koo jariñ yooyu yëpp euh, murit bi mën na koy baril waaye taalibe bi mën na koy baril su fekkee ne bëgg naa mucc ci saytaane moom mu nga xam ne mucc ci moom lu jafe-jafe-jafe la euh, wa sijnu kaso lil hawa ñeel bànneex su mooy noppi amma ca la nga xam ne lam yokku nekkut za faidatin di aji jariñu wala di aji jariñe wa ak ay xéewal euh, ne na sijj na maanaam kaso gi nga xam ne mooy kaso bànneex de mooy lan mooy lépp loo xam ne wax ju amut njariñ la nga noppi ca lépp loo xam ne wax la joo xam ne amul njariñ wax la joo xam ne bànneexu bakkan dong moo tax nga koy wax nee na na nga fexe nga noppi ca wax jooja jëpp wax ja amul njëriñ daal nee na su fekkee bëgg ngaa mucc ci bakkan bëgg a tëj bakkan ci kaso nee na jëpp wax ju amul njëriñ na nga ko moytandiku bu baax a baax a baax ndax euh, euh, euh, yonente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ñuy wax ci xadis ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri falyaqul xayran aw liyasmut nee na képp koo xam ne gëm nga yàlla day gëm bis ci na ngay wax aw yiw te noppi soo waxee aw yiw ba pare na nga noppi waaye bu ca euh, teg leneen kon loolu lim ñu ciy jàngal mooy lan mooy nit ki dafa war a taqoo ci aw làmmiñam di wax wax ju yiw waaye su fekkee ne dem na sax ba mënta wax ju yiw na fexe mu téye aw làmmiñam noppi kon euh, noppi dafa doon wurus wu gànjaru woo xam ne euh, doomu aadama bi waru koo sàggane waaye doomu aadama bi war na koy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ngir lan ngir solo su mu am Euh, su fekkee ne mënoo wax ci saw làmmiñ lu baax rek fexe nga téye ko waaye fexe nga noppi ngir noppi googu nga noppi moom mooy li nga xam ne moo lay moo lay musal mooy li lay li lay euh, kon làmmiñ itam wala gémmiñ itam euh, bokk na ci li nga xam ne mën naa dugal doomu aadama bi waaye la nga xam ne moo ko ci musal mooy lan mooy mu fexe su fekkee ne mënta wax lu baax rek mu noppi amma silaxuha ndaal ngànnaayam moom bànneex moomu allazi ba nga xam ne yasuulu dana songe bihi ca moom saxsan jëmm fa kasratul kalaami mooy bari ay wax fil doole ki ay caaxaan ne na e, ngànnaay li nga xam ne nag moom e, moom e, bànneex moomu dana ko songe nit ki mooy nit ki bari ay wax bari ay wax wax joo xam ne amul benn njariñ waaye wax joo xam ne euh, euh, am amalu nit ki njariñ waaye waxi caaxaan rek la waxi mboosóor rek la wax joo xam ne jëmut ci tudd sa borom bi subhanahu wa taala jëmut ci lenn waaye waxi caaxaan la yoo xam ne euh, daanaka mënta jariñ doomu aadama bi dara kon loolu moo tax itam doomu aadama bi war a bàyyi loolu xel ba li nga xam ne mooy bakkanam mu fexey ba ngànnaay loolu mu yore te mooy di ko dugal ci wax wax ju amul njariñ di ko ci xertal ak ci wax joo xam ne waxi caaxaan dong la mu fexe ba not ci bakkanam ba yooyu yëpp du ca jëm kon euh, bakkan yitam loolu moo di euh, ngànnaay li nga xam ne euh, bànneex loolu mooy ngànnaay li nga xam ni yor na ko di ko songe doomu aadama bi te saabu la ci songee mën na la daan te daanee du gën ci yow ngir ne ci la mu lay yóbbee rek mooy lu suñu borom subhanahu wa laa di euh, tere waaye mooy lu suñu borom subhanahu wa taala di aaye moo tax sëriñ bi radiallahu anhu doon ñu wax ci nahju xadail xaaj ne ba ayba mastatanta bi sumti inna fi sumti raxatan li samuuti ne na na ngay suturaal say ayib loo ci noppi ndax euh, noppikat am noof laaye ngi ci ñeel aji noppi ji kon noppi njariñ rek lay mën a jural doomu aadama bi su fekkee ne mënta wax lu baax waaye su fekkee ne mën naa wax lu baax nag di ko wax ci aw làmmiñam moo gën waaye su fekkee mënu ko lay e, la nga xam ne moo koy suturaal dëgg-dëgg mooy noppi moo tax mu ne wajanli sumta ino yiita jawaaban rubba xawlin jawaabuhu fi sukuuti na nga def noppi day e, muy e, sa ngànnaay wajanli sumta ino yiita jawaaban maanaam saa boo xamee ne sonn nga ci waxante na nga def noppi muy sa ngànnaay ndax euh, bariwaana wax joo xam ne tontu la moo di noppi bariwaana wax joo xam ne tontu la moo di noppi kon boo bañee sonn fexeyal nga téye saw làmmiñ waaye fexeyal nga euh, euh, téye saw làmmiñ ci lépp loo xam ne lu suñu borom subhanahu wa taala aaye la waaye fexeyal ba not sa bakkan ba bu mu la not songe ci ngànnaay loolu nga xam ne moom lay songe doomu aadama yi bi xërtal nit ñi ci wax joo xam ne wax ju amul njariñ la waaye wax joo xam ne euh, mënta jural boroom lenn loo xam ne euh, daf koy dolli ay ngëneel wala mu koy dolli ay tuyaaba kon euh, yooyu ay noon la yoo xam ne noon yu jara bàyyi xel la xam leen waaye xam leen ba pare xam ngànnaay yi nga xam ne moom lañ yore di ko songe doomu aadama bi waaye itam nga xam yan kaso ngay wut pour man leen caa tëj te kaso yi sëriñ bi radiyallahu anhu leeral nañu ko ginnaaw ba mu ba mu ñu leeralee kenn ku ci ne ci ñoom ngànnaay la nga xam ne moom ngay son songe li nga xam ne moo ci am solo nag mooy boo xamee ku ne ngànnaay li nga xam ne moom la yor nga fexey jàmmaarloo ak moom ba damm ngànnaayam loolu ba du ci songu waaye boo ko dammee ba pare moom mi borom gànnaay li nga fexe jël ko tëj ko ci kaso gi nga xam ne moom la sëriñ moom la la sëriñ bi radiyallahu anhu digal te leeral la ko su ko defee boo defee loolu suñu borom subhanahu wa taala mën naa dogal nga mucc ci euh, seeni pexey ñoom nooy noo noon yooyu kon ñi ngi tuub bu baax te jéglu di wàcce foofu kàddu gi di wax euh, in uridu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi ila billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu si